Amadou Ba d'ailleurs ku ci mel ni ab Mbow euh, bi mu ñëwee fii ci plateau Maïmouna Ndour euh, waxtaan nañ ci nee na d'ailleurs war nañu gise war nañu aussi waxtaan ñoom ñaar euh, mais en am na ku génn ci langue gi moom mais je je je m'engage waaye ñu bëri dañu gis ne dañ bàyyi foofu waa bennoo rek ñuy def seen seen genre jeu yooyu yëf yi dafa mel ni genre deal disperser divertir li nga xamante ne moom mooy opposition suñ paree ils vont ils retrouver euh, par rapport ak perception boobu ba ba nga si am honorable alors jërëjëf Adja man damay rebondir juste ci li doyen wax sànq xam nga le candidat de Macky Sall il part pas avec des atouts il part avec des faiblesses en tout cas suñu xoolee configuration bi askan wi di vivre depuis quelques années depuis quelques temps euh, tout ce qu'on reproche à ce gouvernement, la malgouvernance, la gabégie, la restriction des liberté le chômage des jeunes, la demande sociale, le panier de la ménagère yooyu yëpp réglé ci dara dara dara ni ñu daan bu Macky Sall nekkoon candidat ni ñu ko naroon sanctionné noonu la ñuy sanctionné ki mu tànn dama defee ne dafa tànn nit pour kooku daanu ci gannaaw mu ngemb ay mbër yu làqu man le fait que Boun Abdallah Dionne ñu ne Macky wax d'accord ñi réalité Abdoulaye Daouda Diallo kenn mos ko dégg mu ne candidat la en kenn mos ko dégg mu ne bu Macky tànn tànnee kële damay damay xataraayu au début dafa waxul rek nit ñee ko prêté naan ay kiiyul ay num tuddati <coughs> newul waaw ak yooyu mais de toute façon ñi xam ñi xam dëgg dëgg dëgg sa position dans le benn Bokk Yaakaar xamoon nañu ci waaw lay mucc euh, le maire de Linguère Alingou Ndiaye ñëpp xam nañoon depuis le début moom il s'était affiché Alingou Ndiaye même avant avant deux mille avant deux mille vingt-quatre Alingou Ndiaye voulait être candidat depuis 2019 donc ñëpp xamoon nañ ne que mais Boun Abdallah Dionne quand quand j'ai vu hier sa tribune dama ne ah il a un problème il y a un sérieux sérieux problème parce que mënuma comprendre ce mu détaché wu de Macky parce que comme ni ko gars yi di waxee c'est vraiment le double Sall c'est c'était son homme de confiance depuis tout le temps depuis 2008 jusqu'à aujourd'hui que mu ne moom d'accordul ci choix bi day demal boppam euh, je me dis que il a dû en discuter avec le grand patron forcément